تفضيل أحمد بن عبد الله يعلمه غير غبي الله تفضيل أحمد بن عبد الله يعلمه غير غبي الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di ziar bu baax di leen balaax te di leen balaax di ñaanal sëñ Muntaxa bur yàlla yàggal ko fi ci wéral ko ba li mu yéenee liggéeyal maamam ci liggéey bi suñ borom kàttanal ko ba mu def ko ci coobareem di ko ñaanal xalifa Baye Fall di ko ñaanal bépp kuli xalifa di ziar suñu jëwriñ sëriñ Amdi Guèye di daayiratu tuubaa Istanbul ànd ak moom ci liggéey bi euh, daan ko def ba ren jii ñu ànd ak moom def si ko di ñaan yàlla yàggal taxawaayam ak képp ku nekk ci gannaawam. ñu ngi ñaanal aussi waa daayira Touba Istanbul gépp nag di ko jaarale ci suñu njiit gi ñaanal yàlla guddal aw fanam ci wéral ay cëram ñu jox ñu jox leen suñu jëriñ sëriñ Amdi liggéey bismillah asubillah bismillah inna waliyallah barke borom Touba salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñoo ngi nuyu ñëpp di siyaar yi ñëpp jiitay siyaar bi sëriñ Muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ko ñaanal njabootu borom Touba gi yëpp di ko ñaanal kilifa diine yëpp di ko ñaanal Cheikh Amdi Menda Fall ak njabootu maam Cheikh Rahane Fall yëpp ñoo ngi siyaare bu baax suñu Abdou ak ñi mu àndal ci liggéey bi waa di siyaare bu baax suñu aafiya bu sa imaam di siyaare mbokki taalibe yëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex di siyaare suñu Assane nag bu baax. ndax liggéey bi daanaka moo ko moo moo ci moo mooy mooy kilifa gi di ci soññee bés bu set ñu koy siyaare bu baax di siyaare képp koo xam ni yaa ngi ci daayira tubaa Istanbul turki di siyaare jëwrin yëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex di siyaare mbokki taalibe yëpp di leen ñaanal jàmm di leen wax ni liggéey bi nga xam ne moom lañ doon liggéey yàlla dogal na moo nekk nii. Eh, ñu indi ko tey jii di sant ci képp koo xam nag amoon nga yéene ñëw yéene yitteyee bari waaye ñu ci bari amoon nañ yéene fekkee ko waaye lii la yàlla dogal kon ñu ngi leen di wax ni liggéey bi yegsi na moo nekk nii ñu ngi siyaare mbokki taalib bi yëpp di leen ñaanal jàmm di ñaan nag coono yi nga xam ne mu nga ca dëkk ba ak fitna yi yàlla ko suñ borom teggi ci barke barab bi suñ borom def fa tawféex yu yaatu ba li ñu yéene ci liggéey Sëñ Tuubaa gi yëpp ñu mën koo matale ndax euh, liggéey bi daana gën a dox nii waaye yàlla dogal na nag ñaari at yi yëngu-yëngu ya am ca dëkk ba ak jafe-jafe yi moo waral ni mu daa doxee doxewu ni ñoo ngi sàkku ci barab bi ñu nekk ñu ñaanal ñu dëkk ba dal mbokki taalibe yi am tawféex ba liñ liñ daa liggéey ci liggéey bi ñu mën koo matale barki Sëñ Tuubaa ñoo ngi sàkku loolu ci ñëpp ñu ñaanal ko waa mbokki taalibe yi nekk Istanbul yëpp ndax am nañ yéene ci liggéey suñ tubaab bi te jàmbaar lañ ci xëy nag fitna yi ak coono yi nga xam ne moom lañ jàkkante ñaari at yi ñu ñu teg ba léegi moo waral liggéey bi xaw a yéex waaye teewul nag ñi ngay góor góorlu di def seen kamtalaay kàttan liñ man ak ñu mënut ni ñaan yàlla nañ ci taseeg ngërëmu sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aouzu billahi min asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa eh, sëriñ Amdi ñu ngi lay nuyu <coughs> di nuyu mbokk yi nga àndal yëpp di nuyu tamit waa daaira Touba Kansul Muhtadin bu Touba Istanbul Turki di leen nuyu tamit ci turu sëriñ Afia Bousso eh, imaam moom mi nga xam ne mooy njiitul liggéey bi di daaira Muxaddamatul Xidma muy bi sëriñ bi denk jumaa ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoom laa àndal ñuy wuutu ko fii muy sëriñ Abdou bu Bousso Muxtaar di secrétaire général adjoint bu daayira bi sëriñ Abdou bu Bousso di responsable communication sëriñ euh, Mouhamad Ñang ak kilifa yi fi nekk yëpp sëñ Saaliw ak sëñ Soaybu di am mbégte bu baax ci jataay bi euh, di leen sant bu baax di leen gërëm ndax liggéey bi nga xam ne moom ngeen jébbale muy liquide bii nga xam ne ay bidon yu bëree bari la nga xam ne benn bu nekk rek daanaka mën naa setal lu bëree bari ma maanaam mas ngeen ko fa indi daanaka am na ñun ñetti at yoo xam ne ci la setal jumaa ji loolu taw feex la beneen bii mooy jumtuwaay yi nga xam ne moom ngeen di indi maanaa yu mel nii dafi dut am ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi di wut matériel bi dañ koy wër fu nekk rawatina bale yi façon bale yi ak façon raquette yi muy bant bi nga xam ne moom ngeen di andi nga xam ne dana mat deux mètres et nga xam ne ndimbalu liggéey bi day day gaawal day gaawal liggéey bi ndax bale bi bu fekkee ne bant bi gudd na ak raket bi day tax nit ki fu mu toll <clears throat> dafay mën a laaw lu bëree bëree bari loo xam ne euh, day yéeme muy muy ñaari façon yi nga xale bii mën naa bale moquette ba noppi mën a bale karo bi ñaar lay boole bii tamit xam ngeen ne ñi ngi jub nawet xom ma lu leen xalaat loo sax ak lu tax mu ñëw ci waxtu wi nga xam ne nawet bi carreau bi ndox mi dafay taa te nit ñi il faut nga di ko setal ngir bañ ñuy ñuy tarxiis wala dara façon tonnikaay bii it jàpp naa ne suñ saaliwu mais ñu yor magasin bi yaakaar naa yii tamit euh, yombut waxtu dëgg yàlla waaw yombut ak bant bi nga xam ne euh, dafa dafa dafa gudd lool loolu nag bu ngeen gisee ñu ciy taamu toujours Touba Istanbul ngir di soxla ay matériels yu jóge foofu xam nañ euh, ñoom ni ni seen mbir mel ci wàllu jumaa nga xam ne daanaka mooy capital bi nga xam ne bu ëppul ay jumaa ci àddina bi ñu ko ci ëpp lu bëri te ay siècle siècle siècle ñuy tabax ay jumaa nga xam ne am nañ expérience ci lu wàllu muket muket yi fa lañ fa la jóge muketi jumaa ji fa la jóge am nañ expérience ci wàllu karo ak marbu ak li koy setal ak wàllu entretien te xam nga ñun liggéey bi nga xam ne moo jiitu sëriñ bi digal ñu ko jox ñu ko mooy entretien jumaa ji ak sàmm worma ji ñaar yooyu moo jiitu ci des yëpp dafa ñëwaat fekk ko waaye yooyu moom doon na yoo xam ne mooy matt yi nga xam ne moom duñ ko caaxaane tey jii rek da ngeen dañoo dañoo ñëw midi waaye daanaka lu mat trois cent personnes danañ ñëw fii nettoyé jumaa ji gis ngeen ni mu sete noonu tamit ni lañ ko rangalee ci bis bu nekk xam nga ajjuma rek la daayira bi daa setal alxamis asaabul janna waaye fii may wax ak yow daayira Moukhaddamatoul Khidma dafa dafa créé ay cellules ci Touba yoo xam ne samedi dimanche lundi mardi mercredi yëpp am na ñoo xam ne dañuy ñëw ngir setal si kon loolu matériel bi ñu soxla dafay bëri ndax looy baree bët bu set day jeex nga xam matériel moo tax moom duñ ko doyal <laughs> moo tax fi ngeen ñëwee. Euh, rawatina liquide bii moom nga xam ne moom moom moom macha allah yaakaar naa ne tey boo tànqee benn potu ndaa rek <laughs> daanaka li nga ciy setal kenn du xam nu mu toll. it façon liquide bi nga xam ne day setal morbo bi te du te du xàll euh, da koy jox tamit euh, éclairage boo xam ne du bokk ak yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo fii loolu yëpp dafa doon yoo xam ne ay ndimbal la waaw te it maanaam détachant la day rey microbe. loolu loolu nag xam nga kon tawfeex yi ci am bëri na kon daal liggéey bi rëy na euh, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant it bokki taalibe yi nga xam ne ñoo ci doon participer tam jar ko lool ndax mooy loo xam ne tey mën ngaa nekk ci sa barabu liggéeyukaay wala nga nekk sa kër di tëdd di nelaw képp ku xëy yor ak bale wala nga yor serpillière wala nga yor nettoiement di di bale dafay mel ne yow yaa ngi tëdd waaye yaa ngi ngi bale jumaa ji te kenn xamut tiyaaba jooju fu mu toll rawatina nag jumaay sëñ Tuubaa jumaa ji moom euh, man ngaa wax bay jumaa bari le ko lool waaye fii jàpp naa ne jëf dafay gën a sekkee ci ci ndax jumaa yëpp di ji da cee gën a barkeel nag sëñ Fallu ko waxoon moo ci gën a tedd gën cee barkeel ndax fa ko boroomam amee nag amee ko fa dafa yombut muy ca maa yomba comme sampee ñeenti bantam ye di julli tubaab yi ñëw buddi ko mu taalif xasida googu di raditu anil mawla ci la ko sunu borom mayee jumaa ji mu digle ne bu ngeen ko defarul junne yi ak malaayka yi dana ñëw def ko ndax suñu borom dig na ma ko te teg naa ci sama bët te dana am loolu tax mu wax saaxali xayrillahu fii maa yomba maa saa a xal biya wa ahlal janba sama la nga xam ne moo ma naqari woon ca maa yomba muy sama bant yañ yañ buddi woon dey sama ñaari soorool yi dékkërle euh, fay na loola loolu nag euh, li suñ fàllu doon wax naan seenu bu yaxangoog ba fu mooy du caa gën a tabax jumaa ji rek la sëñ bi doon wax loolu waaye ku jàpp ci cet ga wala ngay jàpp ci entretien ba wala war ma ja wala yu demee noonu da ngay dugg ci loolu da ngay dugg ci li sëriñ bi di ñaan tamit wax fir liman banaw bina arafi wax fir liman amarahum bi jami wa li jamihim an ahanahum ala binaiha allazi bi a tala kon nag jàpp naa ne jëf ji mën naa jeexal jafe-jafe yooyu ngeen di wax takk ba képp koo xam ne day taalibe bi suñ tubaa nga eh, nekk fa di jëf ci jëf ji wala nga yéene caa jëf jàpp naa ne ku la bëgg a jéemal wala mu jéem laa fexeel yaa cay des waaye du la mënal dara ndax loolu xam nañ doole barab bii kon yàlla yàlla kattanal leen te yokk man gi yokk jumtuwaay yi ndax kat taalibe yi fu ñu mën a nekk fii rek lañ lañ bàyyi xel am ay xéewal am ndimbal ba mën koo indi ci sëriñ bi rek moo leen tax a jóg kon loolu yàlla na ko yàlla di jàppandil sëriñ am di ñu ngi lay sant bu baax di sant jëwriñ yëpp ci taxawaay bi liggéey bi yàgg na ni ko doon sëriñ Assane euh, sëriñ Assane Diop moom mi nga xam ne tamit mooy euh, coordonnateur u diaspora Moukhaddamatoul Khidma euh, ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax xam nañ ne soññe bi du dakk waaw xam nañ ne euh, soññe bi du dakk toujours mu ñuy jo mu ñuy tamit seen pasteef ak seen bëgg-bëgg ak it seen taxaw ngeen bëgg a taxaw ci ci liggéey bi loolu nag ñu ngi koy yëg bu baax a baax kon yàlla yàlla fay leen barkati xaadim rasul xam naa daal kàddu yooyu moom lañ doon jottali bu ko sëñ Abdou Lahad mi waxoon xay na mu gën a matale waaye ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan daal suñu borom nangul ñu euh, te fulal ñu jëf ji ci darajay borom Touba waaw ndax lii daal moom mooy liggéey bi du du lenn kenn lépp ñëpp la lépp ñëpp nag lu nay ku nekk ci fu waay mën a nekk ci àddina kat barab bii rek lay bàyyi xel kon nag képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel ci la koy setal donte taqut wala la koy taaral la koy gën a gën a baaxal loola xamal ne yaa ngi ci jëf joo xam ne sunu boroom nangu na ko te sëriñ bii du nangu nit indi fi jëf ju sellut maanaam ku fi sa jëf ñëw rek dafa neex sëriñ bi kon nag dugg ngeen ci biir jëf yi neex sëriñ bi kon yàlla ñu ci yàlla boole defal ndimbal defal ñu tawfeex bi barakati xaadim rasul darajay Cheikh mun Muntaxa rawatina nag fii mu ñëwee nag ci diggante ñaari bis yi ñaari ajjuma yi muy ajjumay Tuuba nga xam ne ajjuma ji jàll gis ngeen ni mel te jàpp naa ne jii di ñëw lay raw te seen bagage yi ngeen indi buñ noppee mooy mooy setal barab bi loolu tawfeex la kon tawfeex la ci ñi ko indi tawfeex ju rëy rëy la kon yàlla la dugal ci tawfeex yooyu ci ci ndig digle yi ak ñaan yi nga xam ne Cheikh Mamadou xaa ñaan na ko ci kàddoom yu sell yooyu di barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh